ce que ce que je voulais par rapport à ça xam nga certificat médical ne veut pas dire dafa violer ou violer. wala non non certificat médical danaan la peut rapport am na. waaw forcé euh, pénétration. y' maintenant euh, ce qu'il faut comprendre pour man pour man c'est un simulacre de procès très franchement pour man process bi du début à la fin ba fii mu yegg si tey pour man les droits de Sonko ont été bafoués très franchement visé bi visé bi c'est pour l'éliminer c'est pour l'humilier loolu mooy dëgg boo génnee tey ci sénégalais yi ku gën a ndaw il va dire la même chose très franchement moo tax tey jii. boo xoolee ñu bari waxuñu sax ci ñu bari waxuñu ci sax rawatina les nos amis de Pastef parce que en réalité boo xoolee ni ni ni mbir mi di demee du début à la fin heure bu ñu woowee Sonko ñu boucler indi ay cest à pour mu dem wuy ji sax problème la au finish da xam ne ñii. la personne de Sonko même les dérange à partir de ce moment peut-être le doyen wax na ko peut-être percée bi mu am la wala les gens ont pensé que lui il peut constituer un danger pour ce régime moo tax ñu ne nañ ko song moo tax tey même bu fekkoon ne ce qu'ils disent c'est vrai niñ ko doxalee boobook léegi moo tax sénégalais yi tey képp koo ci laaj sur dix les neuf vont te dire que lii simulacre de de de de procès la par conséquent quel que soit l'issue ou le gëw ma ne l'opinion dina ko mën a dugal ci boppam parce que ñëpp jàpp nañu ne fi mu jëm nii mais ils vont ils vont essayer de casser le candidat Ousmane Sonko. waaw mais si si si toutefois si toutefois c'est le contraire. je ne pense pas que c'est le contraire c'est ma conviction moi.